combat ngi nii lii la gars yi nam ci rëg-rëg waaye conteneur mi yaakaar naa du neex <laughs> kii daa mel ni bërekat la de Gomis lii la gars yi nam ci rëg-rëg xam nga su mbayang lu mu wooyee moomoo ngoom tëgg amateur yi yuuxu lii gars yi dañ koo nam solonte waa wàcc na tibb ko rotation rëg génne na ko rëg génne na ko conteneur conteneur mi ci xam nga xale yi dañoo nam lamb moo tax réew mi président na ubbi lamb ji gaa yi bëri si xam nga rëg-rëg mii gaa yi di ko gis mu wàcc ana ñoom sele mele ñoom grand bañik ñoom Serigne Ndiaye numéro 2 Ibou Senghor ah eh wàcc na waaye dafa diis dafa diis ndaysaan booy gomis xam nga li Equivox rek nga ko mën a nag du mën a de Equivox moo lay jox lii nga koy seetaan Babacar di la ko reportel Gomis di la ko filmal El Hadj di la ko montel du mën a ñàkk fii ci taatu géej gi waajal la 27 ak le 28 Fass Ndiaga Coy fallu Ndiaye fa jaar sargal rëg-rëg 1 million 250 mille ak kan moo get borom Las Vegas doomu ndeyu Lirou Diane kenn du moo get Mohamed Diallo doomu ndeyu ak man mi sama doomu ndey la doomu ndeyu guy gi ak ama ak Abdou Diouf daw na dóor tànk rëg-rëg bii tan ko daan na ko waay bii jël la daan ba toog ci sa kaw waay bii jël la rëy waay laa ilaha illallah bii jël la rëy hélas hélas jël la rëy <laughs> conteneur ko de conteneur conteneur conteneur yow itam xanaa andi woo doole. <laughs> indi naa doole de ah. waaye moo naqaree bëri rek dafa diis. Ah. dafa diis de. loo bëggoon def ba ba ba far mbir mi réussir. ma ko doon dóor tànk mu daal daal may si bi fop tamay tànk de. Ah. keneen ku dul moom. bu ma la ko defee dama lay daan. bilaay di caaxaan. kookoy conteneur mu caaro